mbokku téléspectateurs yi am mbégte nag dellu seek yéen ci seen ñaareelu xaaju wareef ci télévision Futur Média euh, di seetu askan wi alaaji nee naa nab yee yëpp yëngu nañu dégg nga sànq Adja Abdou Diop bu sëñ Babacar Sy ah mm-hmm. waa Salon Anna ñoom ñëpp ñu ngi yëngu ndax bëgg gi ñu bëgg Seydina Mohamed alayhi salaatu wasalaam yaay Fatou Thiombane euh, moom tamit euh, Thiombane nekk fale ca cité Hacienda moom tamit alaaji nee naa tamit ma madame Mbow Ah, madame Thiam Ndeye Mbow alaaji soppay mhm. Seydina Mohamed alayhi salaatu wasalaam Ndeye Mbow bu Birane Thiam oh. waaw ma ma ma ma nga toogee déglu <laughs> eh, ndax cofeel gi nga xam ne am nañ ko ci Seydina Mohamed sallallahu alayhi salaam sallam waaye Numbe Thiam ah, soxna Assane Ndiaye miy wëy moom tamit ku bëgg Seydina Mohamed alayhi salaatu wasalaam noonee noonu lañ koy toppee waaye dafa waaye déggeen eh, kër goo gis am na mbër dëgg la ke tëdd ci mbir naa bëri bër te daan ay mbërëm it yombul ndax du am. daan ay mbërëm. yombul du am du am. <laughs> dama la wax nii nii la. mbër bu mënut a jur mbër jëru muy bëree. ndeysaan. dafa am lu mu wax. dëgg la. dañuy daggetu. Mm-hmm. diine. ndeysaan. ñoo fi remplacer Seydina Mohamed moom la léegi de. amul génn kërug diine gu amul. ay mbër sax laay wax. ndeysaan. sooy ajara say ne ba dokk rek comité yoo xam si mu sam xel dem ci moom. boo nee ajara tundi yàlla waat du fa jëm. Ah? dafa am yoo dafa xam ne soxna diggéen Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam dafa bakkan ki tax ma ni ki tax ñu fal la bul fàtte ka tax ñu fal ko boo ko bul ko fàtte mhm. te fii ñu toll mhm. bu bis ba jotee nga xam ni mhm. Seydina Muhammad toolama yaatu ñëpp ci bayta du daj kon boo wëlbatu di nga gisu tàntam ndeysaan rek caaru asil sëriñ Bisiwul Ali Adam Lo nga ni fii la foo dem nag laa wax Lamine ñu ngi waxee noonu damay waxtu suuf nii ña jekk bañ jekkal leen yow bu bëgg a jekk leen fekki fexee la jekk boo ñëw jekk ndeysaan alaaji sénégalais de la diaspora yi sax ñu ngi leen di sax na fu mu nekk ni ñoom nit ñi ñuy seetaan à travers le monde te ñu ci bëri jël nañ avion ni cëpp ci dëkk bi wala nekk ci yoon bi ndax bëgguñu gàmmoo fenn fu dul Sénégal loolu cofeel la def naa doy na ci kese rek Cheikha Aïda Diop ma nekk ci itali ma nga xam ne dañ ko seexal bokk ci kër gi fa tubaakàlla macha allah xir lool lool lool lool lool ci Cheikh naa Cheikh Samb fa xayatu ñoom jóbbe sàmb ñoom ñëpp ko li ñuy def Cheikh Birane ma jox sàmb sàmb daal yàlla na baat bu wér daal macha allah après ñu wax ci diplôme bi ñu ko joxee Algérie bisimilah bisimilah bu la mbaax tëree da ngay rey ca yoneen Bamba sallallahu alayhi wa sallam bu la tabe tëree da ngay rey ca yoneen Bamba bu la yërmaane tëree da ngay rey خير الناس Abdalaay sa doom jarafet na la mbaax tawe dangay rëcc yeneen baax la maanu tere dangay rëcc yeneen baax la ma doo xayruna la ilaha illallah sa doom jarafet na xasama arzaq alxalaiq ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yadayhi faqal alladi qad iqtala رقى إلى أهل المقام ارتقى إليه بالفضل جزيل وتقى إذن رسب في البقاء من بعد الفناء ونال للخرب الذي هو المنى صلى الله عليه وسلم رضي بالله تعالى برم قديجين رضي بالله تعالى ربا فكان لله عظيم حبا سلا عن دارين بالمعارف فكان ملجأ من المقايف متدجل أحمد البصري waykatu Seydina Muhammad ba nee na kayfa tarxaa ruxyaka lambiyaawu yaa sama an mada walada samaawu lam yusaawuka fi ulaaka wa xataa la sana minka duunu wa sana Cheikh Birame jërëjëf Sadbou <laughs> macha allah bu la baax te da ngay roy ci yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam sunu góor gi wax na ko léegi. kon yonent bi yàlla dañu ko. laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana. yàlla nee na yonent bi mooy seen référence. Mm-hmm. mooy seen royukaay royu leen ci sayduna muhammad. alayhi salaatu wa salaam. bu la maandu teweetim da ngay roy ci yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam kuy maandu ci kaw suuf. Mm-hmm. sayduna muhammad moo la gënoon a maandu. doy na nag ci rek. Mm-hmm. mooy yonent bi alayhi salaatu wa benn waay jox ko rendez-vous ni ko suba nanu dajee place sàngam yonent bi xëy fa suba teel toog fa ñetti fan waa ji doo ko xalaat ni joxoon na rendez-vous Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daal di ñëw ni ko ay man de damaa jaaxle sonal naa la mu ni ko ba nga nee ma suba nañ fa daje ba léegi maa ngi fii bu la yërmande tewetim da ngay roy ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xoolal yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci yërmande dafa am benn waay mm. bu ñëw ci kuuru jumaa ji saw fii ñépp bëgg koo dóor tey day ku demoon fii ci benn balaas saw fii boo mooyee dinañ la gaañ yonent bi fel loxo ñépp ni leen bàyyi leen ko ni ko sawaay fii du sawukaay mm-hmm. boo safatee saw demal ca toilette ya nga saw fa mm-hmm. daan leen yéen jërul ngeen koy dóor wut leen ndox ngeen sotti ko ci saw mi rek mu jeex mm-hmm. waa ji daal ni yàlla yàlla na nga ma yërëm maag Seydina Muhammad yow rek yonent bi ni ko xàttal nga waxal ni yàlla yàlla na nga yu ñu yërëm ñun ñëpp yonent ci jikko ba tey jikkoy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam am benn waay bu ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam sallallahu am ab sangam moo ko jënd mm. da koy jaay ci marché bi muy yëkkati baatam ni ku ma bëgg a jënd na nga ma may julli julli juróomi ci ginnaaw Seydina Muhammad fu yonent bi sëlmale gis ko ci première sàppe bi muy julli ba benn bi si yonent bi sëlmal gisu ko ni waaw ana xale bi ñaanoon ku ko jënd nanga ko may muy julli julli juróomi ci ginnaaw Seyduna Muhammad di nga kuy bëgg bëggal Seyduna Muhammad sallallahu alayhi li nga wax jikkoom yaa jikko rasulillahi bokkoon na ci ku weddi kaab moom la Sëriñ Tuubaa naan kaabun wa والبسير قد بلو وكلهم سيروا نور واسرار سات بولان مام سيرن توبا داني خمغا كعب ابن ay tàggkatu sayduna muhammad la sallallahu alayhi xam nga kaabu dafa xas yonent bi benn frère am buñ naan bujayri te bi ni ku ko gis rey mu wax bon li mu def waaye muy làqutu di làqutu di làqutu ji ba ci abou bakrin abou bakrin àggale ko ci mu muhammad bi mu ñëwee way yonent bi benn xasida baana suaadu yonent bi simmi manto bi mu joxoon solal ko ko kon kooku baal na ko mm-hmm. moo tax maam Serigne Touba ni kaabun wa xasanun wal busayr xasan ibnu sabit ñoom ñett ñëpp xat barau jéggi nañu daye ci rafetal wa kulluhum shuronul wasraaru nee na ñoom ñoom ñëpp seen way yi ay secret la ay leer la sang ba ca Madina moo tax déggal waykatam ba nee na ci juddu bu si yu nee bu ñu waxee juddug Seydina Muhammad kuy góor jigéen mag ak ndaw tey jullit jógal taxaw ca kaw laylatu mawlidi lazi juddug yenneen kaana li diini sururun bi yawmi wasdi aaw jërëjëf Sadbu yonent bi laaj ci xale bi ne woon juróomi julli yi nan ko may mu koy julli sama gannaaw ana mu ngir bëgg Seydunaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñu ni ko xale bi dafa feebar yonent bi ni ñu leen jóg dem ñu seeti ko sallallahu alayhi wa sallam xoolal ki nga xam ni dafa waroon na toog yónnee waaye moo sol dàllam ni jóg leen ñu seeti xale bi kon yonent bi ku wàcce woon boppam la te nag dañi man tawaadaa lillahi rafaahu llah ku wàcce sa bopp ba suufee yàlla yëkkati la waaye ku yëkkati sa bopp yàlla wàcce la ba kenn du la gis kon yonent bi dafa suufeeloon wàcce loon boppam soo na déggéen bokk na ci wàcc sa bopp mhm. sayduna muhammad alayhi salaatu wasalaam war mbaam tey ku waroon mbaam di kilifa buñ la rombee nga togg ci nit dinañu yëpp. wallaay wallaay dañ naan xale bii moo ñàkk teggin. wallaay wërta bokk ak sëriñam mbaam mi. yonent bi dafa jëm xubaa. Mm. war benn mbaam te amoon na benn mbaam moo xam ni. Mm. mbaam mi sax dafa bëggoon Seydina Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam. bi yonent bi génnee àdduna. te yonent bi da ko daan war dafa ŋaax daanu ci teen bi ni laa yarkabu nii ahadun baada rasulillah. kenn du war sama gannaaw gi gannaaw sang ba ca Madina. sallallahu alayhi wa sallam. yonent bi alayhi salaat wasalaam jëm xubaa war mbaam abu hurayrata romb ko yonent bi ni ko kaay ma togg la mu di diital yonent bi ni ko yéegal mu doon yéeg jafandu ci yonent bi ànd ak yonent bi daanu yonent bi faxasu yéegaat ni ko yéegal abu hurayrata mu doon yéegaat jàpp ci yonent bi ànd ak yonent bi daanu yonent bi faxasu yéeg ni ko duma la daaneel nag mu ni ko nag duma la daaneel ñetti yoon yonent bi bi mu ñëwee ci buntu kër gi xale bi feebar mu ni asalaamu aleykum wa rahmatullah moom nuyoo boobu rek fu mu jubee ci kër du ñëw rek xëcc bunt dugg day nuyoo yëglu xale ba daan toog ca gannaawam waaw mm. feebar yonent bi di ko seet mm. bi mu ñëwee nee na wax asalaamualeykum waa kër gi fay ñu mu nuyoo ñett yoon waa kër gi doog a fay mu ni lu tax ma nuyoo ba ñetteel yoon bi ngeen may doog a fay ñu ne dañoo bëggoon rek jàmm ji bari wàcc suma kër gi ci sa nuyoo bi mm, waaye nag mu ne leen xale bi moo ma andi moom lay seet si waaye nee na fi mu dugg si. Mm. mi ngi gis malakul mawti nekk ci bopp xale bi di jël si rom ci teewaayu Seydina Muhammad waaye nag fa marhaban bil mawti ida kaana fi taatillah wa marhaban bil mawti ida kaana fi sabilillah dee baax na waaye na la fekk nga nekk ci yoon wi di jaamu yàlla dee baax na yàlla na la fekk nga nekk ci lu neex yàlla wallaay wallaay ndeysaan ñu gis malakul mawti yonent bi ne mi ngi gis malakul mawti waaye nit ñi yàlla mayu leen basira bu ñu gisee malakul mawti wallaay wallaay ndeysaan mu ni ko yow malakul mawti maa ngi lay ñaan booy jël roo sama xale bi na ko jël roo na ko jël ndànk ndànk bu mu metti ndax nag dafa am ñoo xam ni yëfar yi bu yàlla di jël seen roo buñ koy rocc day metti waaye jullit bu ñu rocc room rooga day nañ koy rocc ndànk mu ni ko yow yonent bi dalal yàlla digal na ma ma rocc roo képp koy wax laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah ba di ko yëg kon loolu moo doon jikko yonent bi alayhi salatu wasalam bi asratil xisaal yónneen moo tax sëtam ba ca Nimzaat Cheikh na Cheikh Saad bu ne yàlla jagleel na sama maam fukk yii may bëgg a wax. lam yaqtalim xattu wala lahu silaal. nee na sama maam mësta gént sama maam amul woon takk ndeer lu tax amul woon takk ndeer leer la leer du am takk ndeer. wal baadu maa yuxriju minhu tabtali Seyduna Muhammad Cheikh na Cheikh Saad bu ne ne lu mas a génn sama maam Seyduna Muhammad suuf da koy wan yàlla def fa xet gu mel ni parfum ba dàq ca parfum ya kasratu baabu an haqqan mumtini boo demoon ba marché ba ëpp ay weñ Seyduna Muhammad bu fa taxawoon weñ du dalan kawam Cheikh na Cheikh Saad bu ne man xalfu yara kama yara amam Cheikh na Cheikh Saad bu ne ne ni sama maam Seyduna Muhammad di gise ci kanam ni lay gise ci gannaaw tanaanu aynuhu wal qalbu laa yanaam mel ni da ko fellu Seydina Muhammad nee na inna aynaya tanaamaani wal qalbi wa qalbi laa yanaam sama ñaari bët yi dañuy gëmmu waaye sama mu nga gis moo tax cheikh na cheikh Saad bu ne na ni day bu du nelaw bu gëmmee xol baa nga gis lam yatasayanan lam yatta saa Seydina Mohamed. waaw soxna dégg mu posé benn question. waaw Seydina Mohamed bu daan ëbbali ban loxo lay teg ci gémmiñam bu masaanu ëbb li ban loxo lay teg ci gémmiñam ah xanaa xam-xamu allah ji mm-hmm. daal non Cheikh ne Cheikh Saad bu ne na mm-hmm. Seydina Mouhamed daawul ëbb lii mm-hmm. ku sonn wala ku gëmment mooy gë mooy mooy ëbb lii te Seydina Mouhamed ñaar yooyu yëpp bendalu ko lam yatasabqat wa huwa sadiya Cheikh ne Cheikh Saad bu ne na mësta ëbb li benn yoon te booba na xale la wulida mahtunan ilayhi Cheikh ne Cheikh Saad bu ne sama maam dafa judd rek lakk dafa judd rek ëndaale lakk moom. mbaa xam ay Cheikh ne Cheikh Saad bu ne na bi fas bi yonent bi daan war bu ko yonent bi daan war du bajantu di def dara danaan teg ba Seydina Muhammad war ko dawaabu xiina day ñëw nekk lu nooy loo xam ne du bajantu du def dara ba Seydunaa Muhammad war ko te yonent bi fas wu mu mën a war wala mbaam mu su mu war wala giléem gu mu mas war giléem nga du tur ndox du dem gannaaw kër ba bis ba kara yonent yàlla Muhammad di ko Mustafa Mustafa Mustafa Sidil Mursalina foofu tuuti euh, euh, neexu leen dog sax fa la macha allah yàlla bu leen dara dog mbir mi neex na lool lool lool alaaji ba tey rek ñu ma loo xamante ne ne que lii yëpp suñu koy wax am naa yaakaar ni ku dégg lii war ngaa defaru nee naa defaru weesul ñu toll nag lu ñu koy waxee alaaji jamono joo xamante ne dafa mel ni jikko yu bëri dafa riir mhm. waaye lii rek doy na euh, fàttali lii rek doy na royukaay kon ba tey ñuy ñaax suñu bopp di ñaax nit ñi alaaji li nga xamante ne moo war ku ne mooy yaru yaru te ñu gis dëkk bi alaaji suñuy ma lu mel nii ñi nga xamante ne war na nañu xam saasu lii dëgg ciy gis oto ya nga xamante ne alaaji dañ koy sol waxante ba yokk paas yi nga gis si koo xamante ne du xam ne ay nit la yëpp mu mel ni ay mala la yëpp nga gis si koo xamante ne alaaji keroog ba muy dëgg ma lii ba di yegg ci béréb ba nga xam ne jàpp na ne fa lay gàmmu tànku caaxaan ko tax a jóg mu yéeme ci jamono ji mm-hmm. ani lan nga ciy waaw xam nga déggan tereet fukki at fukki weer ak ñaar la daan doon. dëgg mu jig la mu barkeel. dëgg la. <laughs> ñaari weer sawara la. dëgg la. almet fa waaye pétrole teeru na ko. kon loo ci def da ngay perte. dëgg la. <laughs> dama la looy jëmbat ñaanal yàlla mu sax. Mm-hmm. waxoon naa sax bi ñuy door man la saanu yërmande. Mm. deen ba waas makkaat baax na ndax bu mm. dikkee jariñ la. génn guddi. Hmm. nga mën cee téye loo mën a wax am. fanweeri at ta du jàkk. Hmm. nga am ko ci génn guddi. Hmm. warmaal fa nga jëm a yem waaye da ngay warmaal sa ba bala ngaa dem. wallaay wallaay ndeysaan. te kaay nag ñu waxtaan kilifa yi diine yi. fu ci mën a nekk ci àddina foo mën a jëm jikko joo mën a yor mbubb moo sol la. doo ko suñu tànk egg si woo foofa jag nañu jagal nañ leen. foo mën a wax nag Sénégal. Eh, yar nag. yaroo ko gën. ñu yar la yaroo ko gën. ndax bari na ñuy yar te yaruwuñu. dëgg la waaye suñ la yaree nga yaroo. dëgg jikko gane si la. Mm. ak i teggi na kersa. Mm. foo dem mën a jëriñu. wax naa la fii ni la. Mm. Euh, kërug sëriñ bu dugg. sama doom wax na ko. doo ni mukk ana jabar. doo ni jëkkër da nga ana soxna ak sang ba. dëgg jikko jikko jikko. te yi ñuy bernde foo ci mën dem ci àddina. da naa fii la yem. li ko indi nag mooy. kiy joxe dépassé barata du jeexal mu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon saa bu tàbbee sa biir kër waru iñaan a gan waaye gan gi ñëw war naa xam lu muy lekk wallaay dama ne àllaa ji Moodu Xulle bu yàggul ni ko euh, damay gis toujours euh, bu gàmmu Tiwaawan jotee mm. yàgg àllaa di yeew mu ne yeew loo xay boo ko yeewee leneen ko loo yeew doyul aka sakkan moom Seydina Muhammad alayhi salaam dégg loolu xëjul ci cin déedéet mbaa wël bi bi du la ñor. waaye li ma lay mën a wax ni la. Mm. fu waay mën a xeeñoo ak mm. ngat mu mën a doon. Mm. loo sol ak foo ko mën a sole ci addina. war ngaa tëj seen néeg. santaat Seydina Mohamed. sallallahu alayhi wa sallam ndax lépp mooma. sallallahu alayhi wa sallam. boo demee Touba nga xam. ndeysaan. kan demaloon ci géej gi. ndeysaan. ka doon liggéey ngir Seydina Mohamed. ndeysaan ndeysaan. ku bëgguloon dara. ndeysaan ndeysaan. ni maam mi soxna May. ndeysaan ndeysaan. Cheikh Ahmadou Bamba. ndeysaan. ba mu nee cëpp dañuy jéggal naa. ndeysaan ndeysaan ndeysaan li mu wax léegi. wallaay wallaay ndeysaan kon dama la wax toujours ne la. Mm. Sénégal li ñu am. Mm. nañu réew amu ko. déedéet amul fenn nag. ndeysaan ndeysaan kon boo nekkee ci réew mi am kenn amul. fa nga jëm am na fa te du jeex. fexeel boo demee am fa. bu ba léegi doo ko perte. fa tabaarakalla macha allah goo xam ne gii. Mm. ñu yor oto tey. di jëggaani. war nañoo mën a woomle. Mm-hmm. ku yokk sa paas. wàññi nga sa cër. ku wax lu ñaaw. ñëwaat ni ci yow. ku fa dëgg ma dibit leneen. Mm. ñàkk nga oto dootoo ko am. Mm. waaye fa nga jëm jag nañ te kenn dootul jagadi. kon ñu jàpp ni Cheikh Sadbou lii ñu dëgmal bésu altine bii di bésu feeñam ci zaayir kooku lañu ñu tàggoon ne ko wa innaka la ala xuluqul azim bismillah. waaw a jëm diina. Mm. yaa rasulillah. sallallahu alayhi wa sallam. Ah! jara way yow yaa jara kañ way alime way alime way alime albayti muxtaar ñaar ñoo bari bor dunu daw danuy jee way alime way alime way alime ali bayti muxtaar ñoo bal ngor ndeysaan dum daani jaa maami seex na seex saadu la bi doomi seexi na seex mamad faadal ibnu maami taalib al xayaar maami sëriñ alwali maana njaay seex na seex saadu nee na yaa munkiran nisbatana ila rasul sallallahu alayhi wa sallam li tatat fasqi wala takun jahul qad arada qalaqa siyaq al nuqul wa aqala lahu xalaayiq al luqul jërëjëf macha allah yàlla baax na eh, jërëjëf. macha allah sunu bàyyi El Hadj Ndiaye Lo Ndiaye. Hakim ak euh, sunu soxna Hakim la. Hakim Hakim <laughs> parce que li ñuy wax rek. Oustaz Abdou Karim maa ngi koy ziar li ñuy wax rek ci arab moom rek lay wax. Euh, moom lay wax. macha allah wallaay ndeysaan euh, dafa wax ci rek ci yonent bi. ak lu fa waay di demee. ndeysaan mooy bëgg yonent bi rek. sallallahu alayhi wa sallam mooy li gën lépp. ndeysaan xam nga dafa am benn waay bu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi ni ko kañ la yow mal xiyaam hmm. yonent bi ni ko loo préparé yow mal xiyaam ba koy laaj hmm. mu ni ko préparé lu ma ko julli yu bari hmm. préparé wu ma ko woor gu bari préparé wu ko sarxe bu bari waaye ku la bëgg laa yonent bi ni ko kon almaru maa man ahabba nit ak ki mu bëgg rek ñooy bokk fa ñuy nekk wallaay wallaay wallaay kon ñun ëllëg wallaay ci tàntu si ñooy ci kappaaru Seydina Muhammad wallaay wallaay ñi ñi ànd fee ñooy ànd fee fii ñooy ànd fee rek wallaay wallaay am benn jaamu yonent bi sawbaan sallallahu alayhi wa sallam bu gisal bu gisul yonent bi dafay jaaxle mm. benn bis mu gis yonent bi mm. yonent bi gis ko mu jeex takk yonent bi ni ko moo sawbaan la daal mu ni ko dara daluma mm. bu ma la gisul rek damay wéet ba keroog ma lay gis ma fàttaliku yowmal qiyaam ma xam ni fa may nekk bu ma nekk àjjana fa may nekk ak fa nga nekk du bokk te bu ma duggul àjjana du ma la gis yàlla wàcce wa man yuti allaha wa rasul fa ulaika maa alladina an'ama allahu alayhim min annabiyina wa siddiqina wa shuhadaa wa salihin wa xasuna ulaika rafia kon ñii mu wax nee na ëllëg ku ko ku leen bëgg rek yaag ñoom yéenay bokk fa ngeen di nekk xolam doog a dal kon su ma la déggee Cheikh Birane nañu bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaw nañu bëgg yonent bi nañu roy ci yonent bi nañu bëgg yonent bi nañu roy ci yonent bi ndax bokk na ci bëgg yonent bi roy ci yonent bi dekkal sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi nee na man ahya sunnati ndeysaan faqad ahabbani ndeysaan ku ku dundal sama sunna bëgg nga wallaay bëgg nga nag wa man ahabbani soxna dégg maay fil janna ku ma bëgg ëllëg hmm. yaag man yéenay bokk nekk biir àjjana xoolal sooy ba sooy ba waxtu wi daf ñu dab waxtu wi daf ñu dab fi si moo tax nga fi nga daanele ci àjjana yu gën a kawe loolu yàlla nañ ci yàlla boole yàlla nañ ci yàlla boole ci barke si àjjana firdawsi nag firdawsi man kay firdawsi parce que nag àjjana dafa am ay logement ay loge la ay level la waaw ay firdawsi moom daal moom moom firdawsi macha allah macha allah euh, euh, Cheikh Sadbou gis nañu ne lii dañ la ko baaxee ca euh, Algérie ah fa tabakalla macha allah man nag xam naa ne waa Algérie juumuñu juumuñu bañ la joxe te lii baat bi yàlla na baat bi wér ci barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam yeneen raaya dinañ ñëw incha allah kon tàggul gaañu ci génn wàllu simili. waaw jërëjëf dañuy dañuy sant yàlla rek julli ci yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam comme ni ko defoon ci tàmbali bi. Mm-hmm. ah di gàttal ndax waxtu yi comme dab nañu. dab nañu waaye santaat rek suñuy wayjur. santaat soxna yi. di ñaan yàlla guddal seen fan. di la gërëm yow itam di gërëm sunu papa Ndiaye Lo. ah di wax na nag maa ngi eh, wax jullit yëpp ñu ñaanal suma maam ndax yàlla dafa def mu génn àdduna démb tabaarakallaa di maam Serigne Daaya yàlla na yàlla oyofal suuf ci kawam ci barke Seydina Muhammad sallallahu ah, di kontaan ci waa Mbour yëpp nag ndax man drapeau Mbour laay ko porte fu ma jëm maa ngi kontaan ci waa Mbour ak waa Sénégal jërëjëf tàgg bu gàtt gàtt ah, waxtu yu dab nañu waaw jërëjëf di sant yàlla rek di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa di ñaan suñu borom guddal fan yëpp. ndeysaan yokk wér yëpp ci barki Serigne Touba. ndeysaan ndeysaan di ziar baax a baax a baax Serigne Sidil Mokhtar sunu wasila. ndeysaan di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak ndeysaan barke Serigne Touba ndeysaan ndeysaan ndeysaan di ñaanal sunu mag ju baax ji ndeysaan di sàbbu sàmb wallaay wallaay yàlla na suñu borom guddal wallaay wallaay ko ci seen ànd bi yàlla na ko yàlla téyel boppam ànd bi yàlla na ci yàlla eh, soril seytaane amin amin amin amin amin ñaanal sama yaay soxna Koddu Mbay yàlla yàlla bàyyi ko ci sunu kanam jërëjëf jërëjëf Cheikh Birane waaw waaw jërëjëf ah, ñoo ngi leen di nuyu mbokk xaadir yëpp waaw ñoo ngi leen di nuyu bu ah, baax di lancer benn message rek ñu ngi dëgmal gàmmu nguraan dëgmal gàmmu ngumba waa kër Cheikh na Cheikh Sadio ñuy wax ñi ciy ñëw ñëpp yëpp yàlla ñu ñëw ci jàmm dellu ci jàmm dellu Seydina Muhammad léegi rek la ma saat boo émission bi ma ne ko soxna dé <coughs> père bi day yàkkamte noo toog ak ñoom dañoo am suñu bàyyi suñu taalibe bu génn àdduna moom it góor gi Amar Fall te laa waroon a wax ma rek lii ku la woo nag ci yonent bi laa dimbali yàlla na yàlla defal jàmm yàlla na fi yàlla yàggal suñu xalifa Cheikh al Bunan yàggal fi xalifa Cheikh Mouhamed Vadel doomu Cheikh al Maqfu doomu Cheikh na Cheikh Sadbu yàggal fi xalifa Cheikh al Maqfu mooy Cheikh Mouhamed Vadel doomu Cheikh Chaya doomu Cheikh Maqfu doomu Cheikh na Cheikh Sadbu yàggal fi xalifa yëpp yàggal fi nag sunu xalifa baay cheikh sunu xalifa maam cheikh saad bu moom cheikh Béthio yàlla may ko wér ak doomam bi nga xam ne mooy taaw kër gi di cheikh saad bu sekk ñu gën koo xam ci naa Mamadou ak yore baatu kër bi di Serigne Makhtar yàlla yàggale ko salaamaaleykum jërëjëf ñu ngi ci ziyaare la Adja Soxna Seck ma nekk ca Gueule Tapée suñu yaay boobu soo waxee nguraan rek sama xel dem ci moom sama yaayu bopp la macha allah damay ziyaare rek euh, Aminta Tall suñu doom ndeysaan Zurich euh, yàlla defal ko jàmm amiin di ziyaar nag bu baax baax a baax euh, tubaarkàlla si mhm. euh, bu Paris ak ki mooy Ndey Jaañ Géy moom itam bu nekk États-Unis mhm. di ñaal baax na sëñ Mansour Ñas euh, tubaarkàlla mu Medina baay di gërëm it bu baax a baax ki nga xam ne kii mooy Ndeye Marie Diallo moom Papa Diop ko Diop kooku sopp na bu rëy sopp na bi bu rëy rëy bu mag a nga yàlla na faal Jaañ yàlla ko yàlla gën a defal jàmm di ñaal bu baax a baax nag Ayda Jong sopp nabi tabarkalla ah, euh, yàlla na ko yàlla dafa jëndee xarit yi ñoom ñëpp macha allah euh, di gërëmit bu baax alaaji Lamine Ñang mm. alaaji Cheikh Diop par doa bu baax di ko ñaan ndax kenn du ko mën ci guddi gi euh, fi may daal nag ki nga xam ne ki mooy soxna Awa Gueye soxna Fall Cheikh Ibra maa ngi koy siyaare bu baax a baax di ñaan mu barak ñang ñoom ñëpp ak Mat Lamine Fall mu arrêt Duba lees fi may tëjee nag soxna diggéen mooy sëriñ Fallou Galas Mbacke Maane yàlla na ko yàlla defal jàmm ñëpp bu suba ak jàmm nu complété li ñu wax nag yàlla na ko siy daam fay te nu fekkee ma gàmm ci jàmm kenn kenn bañ ko wóote asida bañ cee am am daw ndànk yërmande am ñëpp yaay waati awoon yëpp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 ci na nga ko delloo njukkal ajiratu seen njaay te nekk fii ci Nord Foire na ko delloo njukkal baax a baax a baax mu ñor a njaay ñoo bokk ndeeg baay daa sopp lii macha allah barkal waaw Khady Fall Tall na nga ko ndokkal kenn mënu ko ci lii tubarkal dina jox rendez-vous rek suba ci kàttanu yàlla ci beneen émission wareef yàlla na suñu borom def dégg ak topp ci barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam te yàlla bu kenn manqué yàlla bu kenn manqué ci barke